waaw mbokku internet yi nga xamante ne yéen a nekk di suivre chaîne bi nekk KSTV euh, ñoo ngi fii ci Géejawaay waaw gis ngeen nekk euh, mun naa ne xale yi génn nañ waaw en plus euh, policiers yi ngeen di gis nii waaw ñoo ngi sànnanteeg ñoom ay lacrymogène mais toujours tamit xale yi ñoo ngi continuer di sànni ay xeer waaw pour l'instant moom ngeen gis ñoom leen taal pono fii nii safara see ngi jip waaw safara see ngi jip moom ngeen di gis nii. xam naa ne lu ci munti am rek ak KSTV dina leen ko toppal ci couvre-feu bi si deuxième jour bi nga xamante ne moom moo nekk euh, tey jii ci alxamis bi incha allah waaw gis nga moom ngay gis ni policier yaa ngi ni mi mi ngi noonu am na lu muy waaj mi ngi koy dàqe mi ngi koy dàqe ok moom nga ni gis noonu toujours euh, policiers yi ñoo ngi continuer Euh, di sànnenteeg euh, ndaw ñi nga xamante ne ñoo ngi bañ li nga xamante ne moom mooy couvre-feu pour l'instant fii tamit lacrymogène yi moom wax fa dëgg yàlla xaw na taqar naa see tuuti métti na métti na waaw. waaw oto bi ngeen di gis ni oto police bi moom ngeen di gis ni pour l'instant euh, policiers yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk si terrain bi à peu près mën nañ ne benn sept ba huit personnes ñoom ñoo nekk fii nga xamante ne moo nekk géejawaay war a jàkkaarloog jeunes yi nga xamante ne ñoo ngi ribostew ki ngeen di gis moom moo nekk commissaire bi moom moo taxaw nii waaw moom ngeen di gis nii actuellement mi ngi xool nan lay euh, jéem a régler situation bi fii nga xamante ne moom moo nekk géejawaay waaw comme ni ma leen ko xee auto police bee ngi nekk nii auto police bee ngi nii waaw je pense que gis ngeen ko si côté rond point bi waaw waaw mbokk internet yi nga xamante ne yéen a ngi topp chaîne bi nekk KSTV ñu nekk si deuxième jour couvre feu bi comme ni ma leen ko waxee euh, tey nag ñu wàcc si terrain bi ñoo ngi nii ak euh, policiers yi nga xamante ne ñoo ngi xool nan la ñuy def pour tas euh, mbooloo bi wala tas xale yi nga xamante ne génn nañ pour jéem a jàkkaarloog ñoom ci li nga xamante ne moom la fi président tek te ñoom ñi bañ ne duñ ko nangu. waaw lu ci mun mënti am dinañ leen topp ak euh, mbir bi ñu xool fu muy euh, mujjee pour l'instant nag gis ngeen policiers ñoo ngi nii di ranger wu seen i matériel pour l'instant ñoo ngi dugg day mel ni dañuy jéem a déplacer wu xool beneen lieu bu ñuy jéem a dem parce que ñoom jàpp nañ ne pour l'instant xale yi xale yi tas nañ mais xam naa ne ak euh, peut-être lacrymogène bi gaz bi yu mel noonu moom moo leen xaw a jàpp moom ngeen ni gis noonu oto bee ngi noonu di dem oto bee ngi dem xëy na mi ngi xoolaat feneen fu muy jëm waaw dem na waaw dem na jeunes yi pour l'instant ñoom tas nañ tas nañ pour l'instant